أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kilifa yu tedd yi ci jotaay bi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen ndokkeel ci weer wu tedd bi ñu nekk ak barab bu tedd bi di leen balu àq ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu nangul ñu suñuy jaamu yàlla nangul ñu suñuy koor jéggal ñu suñuy bàkkaar yaatalal ñu yërmandeem ñuy ziyaare bu baax nag suñu kilifa gi fi teew di jëwriñu daayiratu muqaddamatul xidma di imam sëriñ Afiya Buso waaye di ziyaare boobu di ko ko dénk mu yeggale ko ci suñu kilifa nun ñëpp di Cheikh Mouhamadul Muntaka di ko ñaanal suñu boroom yàggal ko fi lool yokk ak wéram ba mu àggale ay yéeneem ak i naalam di dellusiwaat di sant suñu borom subhanahu wa taala di sant daayiratu muqaddamatul xidma ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne mi ngi koy taxaw ci diine ji di ko taxaw ci liggéeyu sëriñ bi waaye rawatina bu weeru koor ñëwee taxawaay bi ràññiku lool ci tasaare xam-xam ci jàngale ci ubbee ak bunt yu am solo ak li nga xam ne mi ngi koy def di defar ay ndogu mbooloo bu baree bari di fi dog see fii ci jumaa ji loolu di liggéey yu am solo ñu ñaan yàlla lépp suñu borom nangu ko te barkeel ko di sant bu baax ci tànnaat bi ñu tànnaat ren boole ñu ci jataay yu am solo yi ñu war a waxtaane thème boobu di alwaqt alwaqtul islaami wa ahamiyatuhu loolu nag waxtaane ko lu am solo la waqf ndax fi jamono toll dañoo toll ci jamono joo xam ne jamono ju bari ay jafe-jafe la jamono joo xam ne nit ñi dañoo gën a seeni aajo dafa gën a bari seeni soxla gën a bari seeni yitte gën a bari ñu soxlawoo lool ay ndimbal yu sax dàkk te it ñi nga xam ne yàlla mën na leen gan ak ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw léeg-léeg li dox seen diggante day bari lool te fii jamono toll it ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñooy yor réew yi rawatina suñu réew yi nga xam ne seen doole bariwul ñu leen di wax réew yoo xam ne su développé lañu li nit ñi soxla ñu ci bare bari lu ci bare bari ci soxla yi nit ñi dañuy lottu ci faj ko na ko nit ñi soxla nga xam ne daal nit ñi li ñuy soxla lu bare bari nguur yi nga xam ne ñoo yor réew yi léeg-léeg dañuy lott ci faj seeni aajo waaye nu xam ne nag réew moo xam ne ay jullit ñoo ko dëkke ñoom lislaam ubbil na leen ay bunt yoo xam ne lu baree bari ci seeni jafe-jafe mën nañ koo saafaral seen bopp mu doon xeeti jaamu yàlla yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala da ko farataal ak yoo xam ne da ko sopp digle ko dige ci ay tuyaaba yu bari te muy doon jaamu yàlla yu mën a amal njariñ askan wi mën a amal njariñ société bi mu bokk ci yooyu nga xam ne nag lislaam am na ko te mu mën a am njariñ lool ci faj aajo yu jullit ñi lii ñu bëgg a waxtaane muy waqf kon lu mat a waxtaane la lu mat a xam la ndax nit ñi gën koo bàyyi xel gën cee mën a jariñu te muy loo xam ne mën nañoo wax ne Sénégal yàgg na fi donte ni mu war a tasaaroo tasaaroo wu ni waaye yàgg na fi lool kon nag ñu xam ko dina doon ab soññee lool ñu gën koo jox yitte kon bu muqaddamatul xidma tànnee thème boobu ci bind yi nga xam ne moom lay amal ci biir weeru koor bi loolu la ñuy wax ne tànn bu ama am solo la goo xam ne mën naa jur ay njariñ yu baree bari ñu ñaan suñu borom mu defal ñu ci kon ak dégg ak topp te gën ñu ci defal ñu ci tawfiq ñu war koo tënk ci tomb yu gàtt rek mooy li jiitu ñu xamle ci lu gàtt waqfu moom mooy lan yan mooy ay ponkam waaye nag lan mooy cëslaayam ci diiney lislaam buñ ca jógee ñu jéem a wane ay misaal ci waqfu boobu ñu jéem a wane ay misaal yoo xam ne ndax lu fi yàgg la ci histoire lislaam bañ gën a koo mën a xam ndax misaal dana tax dana gën a leeral mbir waaye buñ jógee ci misaal yooyu nga xam ne dañuy dem ci monde islamique bi ci réew yu jullit yi wane ko ci dañuy ñëw ci Sénégal nag xool waqfu moom nu mu fi tëddee ak lan moo ci am ci ay yeesal yoo xam ne warees na koo xam bu baax a baax waaye li ñuy daaneele mooy nun ci biir yoonu murit naka lañ war a mën a jariñoo ci wax buntu waqfu boobu ngir yu baree bari yoo xam ne soxla nañ koo sottal te waqfu doon buntu boo xam ne mën nañ cee jaare ci sottal lu baree baree bari kon ginnaaw laltaay jooju ñu wax ne rek waqfu moom ñun ñëpp ñu bari ñu jàng fiq bu ñu demee ci téere fiq yi dinañ ko fekk bu ñu wutal ko bunt di ko jàngale di wax ay sartam ak di wax ay ponkam ak la ca aju lépp waaye kon moo tax dañ ciy tënk rek ne taarifaat yooyu ñu koy xamle li muy baree bari mën nañ koo delloo rek ci am na benn bu ci siiw boo xam ne làmboo na lu bari mooy li ñuy wax ne xabsu aynil maali wa tasbilul manfaati mooy alal joo xam ne dafa am jëmmu nga teg ko téye ko ne kat lii moom dama koy def ci yoonu yàlla jëmmi alal ja des fa njariñ la cay génne nga moomale ko ay jullit ñëpp rek ñu mën koo jariñoo wala sax nga am ñoo ko moomale ci sa biir ay njaboot say sët wala lu demee noonu kon lépp loo xam ne alal la joo xam ne moo xam kër la ah moo xam tool la moo xam lu ni mel loo xam ne luñ mën a jariñoo la lépp luñ mën a jariñoo nga ne kat lii moom dama koo def ci yoonu yàlla kenn moomatu ko maanaam maanaam kenn sañu koo jaay kenn sañu koo maye kenn kenn dootu ko doon nga xam daal loolu lu fay des la rek nekkal fa yàlla njariñ li jullit yépp di ci mën a jariñu wala ña nga xam ne ñoom lañ féetale njariñ la wala sax doomu aadama yu mën a doon ndax waqfu moom ña ca mën a jariñu yemul rek ci jullit ñi waaye ku dul jullit sax mën naa jariñu ci waqfu loolu day wane rek yaatug lislaam ak mbaaxug lislaam ak ubbikug lislaam kon waqfu li liñ koy xamle lu muy bari bari rek mën nañ mën nañ cee tënk ne jëmmi alal ja moom luy des lay doon bu dee kër kër ga dafay nekk bu dee ab daara la daara ja nekk fa bu dee ab teen la mu nekk fa bu dee ab tool la mu nekk fa nga xam ne yow dootoo ko jaayati dootoo ko mayeeti dootoo ko tayle du boobu nit ko def it ki ki waqf alalam jooju bu fi jóge woon kenn du doon alal ja waaye dafay des nekkal fa ñam ko jagleel ñam jagleel njariñ la wala mu nekk loo xam ne jullit ñëpp ñoo ci mën a jariñu wala doomu aadama yam ko jagleel kon la jiitu ci waqf kon ñu xam ko mooy alal juy des la njariñ la di dem ci ñi néew doole wala miskin yi wala sax muy dem ci geneen anam koo xam ne rek anamu jaamu yàlla la anam gu baax la anam guy jur njariñ la la ca topp koy ñu xam ne kon waqf boo ko xasee def lañ lañu lañu waqfe loolee du du kenn dootu ko jaayee dootu génn ci ak moomeel di dem ci geneen moomeel day fay daal di des rek nekkal fi suñu borom subhanahu wa taala waaye la cay lañ cay jariñoo mooy njariñ la cay la cay génne moo tax la ñuy waqfu danañ ñëw ci ponk yi dañuy gis ne lu am njariñ la ndax loo xam ne bu fi nit ki jóge woon it loola moom dafay des fu mu mën a nekk njariñ lañ koy jariñu tuyaabay tuyaabay da ko fekk fam nekk te ku ne xam na ne doomu aadama moom bu fi jógee ginnaawam lu dul doyal tuyaaba nit ki lu mu bari bari jaamu yàlla lu mu bari bari jëf yu baax yawmal qiyaam ay tuyaaba du fa doy di Sëriñ Tuubaa di wax ci Masaalikul Jinaan di nit ki bu fi jógee li muy gën a bëgg rek mooy dellu siwaat jamono ba donte saa su néew la mu jaamuwaat fi yàlla jaamu yàlla boo xam ne bu delloo dana ko fa jariñ kon nag bàyyi fi loo xam ne lu lay jariñ la lu ama am solo la te loolu mën nañ ne ma moo moo tax wax fu jóg muy jariñ ki nga xam ne moo koy def waaye nag njariñ la dafay des ñeneen di ci jariñu la cay tuyaaba di fekk boroom fa mu nekk nga xam day mel ne kon waqfu lu fu mu bari rek mooy ñi fi nekk ñi ngi bàyyi xel ëllëg ñi ngi bàyyi xel génération yi ñëw ci njariñ yi fi nekk kenn du ko yemale ci sa bopp wala nga yemale ko sa njaboot waaye da ngay bàyyi xel ay jullit ñoo xam ne ëllëg lu mu yàgg-yàgg danañ mën a jariñu ci njariñ yooyu kon loolu lu mën nañ koo tënk ci xamle lan mooy waqf kon waaw ndax baatu wax ñu ngi jóge rek ci taxawal dara ne kat lii moom dama ko fi baax du ma ko maye du ma ko jaay du ma ko du ma ko du ma ko du ma ko bu ma fi jóge woon it kenn du ko doon loolu nag ngir mu am fokk mu am ay ponk yoo xam ne bu ci manqué waqf du mën a am ba ca njëkk mooy luy tegtale waqf moo xam nit ki daf koy bind walla daf koy daf koy wax nit ki bu ko bindu te yéene ko te wax ko it ñu seede ko wala kam ñam ko séqal dégg ko mu jo jébbal leen ko bu boobaa loola doonte binduñu ko suñ borom moom gis na ko ca loolu it dañuy wax ne pas-pas bu wëy la boo xam ne da koy daal di war ña ko moom ñam ko jagleel dañ koy daal di mën a tàmbalee jariñoo kon siixa bi nga xam ne mooy lii firndeel ne yow mii sa alal ji def nga ko wax loola kon ab fonk la ci boo xam ne mënut a ñàkk waaw nit ki bu bàyyi àllam ni mu ne ñum rek waxu ci dara bind ko mu jógee fi ñu ne ah lii kat kon waqfu la ndax moom da ko fee bàyyi waxu ci dara rek déedéet kon fokk mu ñu wax ne leeral bind ko wala mu mu wax ko kon loolu mooy fonk bu njëkk bi mu amaat beneen fonk boo xam ne mooy fokk mu am ki nga xam ne mooy def waqf mooy nit ki nit kooku nag mën naa nekk jëmm maanaam personne ñaa nit physique mën naa nekk it sax maanawi muy li ñuy wax personne morale ca bu dee ci suñ jamono ji mooy lu mel ne ab société nga xam ne du jëmm ju taxaw waaye ab entreprise mën naa mën naa mën naa def wax loolu kon ndax entreprise ñu bari mën nañ koo bokk jëmmi nit ñi dañuy am seeni dañuy am ay doon ay jëmm waaye dañuy wax ne entreprise bi jëmmi boppam la ndax day am lu koy lu ñuy gàll ci entreprise bi loo xam dañ ko gàll ci boroom yooyu yëpp day am kon lii waqf mën naa doon nit jëmm walla mu doon lu mel ne ab entreprise waaye bu dee nit moom fokk mu doon koo xam ne ku ko sañ la ci alalam ndax gone gu ndaw goo xam ne majeur agut daanaka sëñ te soppaxndiku ci alalam nu ko nu mu ko soobee walla koo xam ne àndutakum xelam kooku sëñ te soppaxndiku ci alalam nu mu ko soobee ndax àndutakum xelam ñu mel noonu waqfu duñ duñ mën a seen waqfu du mën a wëy kon ngir waqfu ba wëy ka koy def dafay nekk koo xam ne ku am xel la ku majeur la koo xam ne moom moom li nga xam ne moom lay moom lay def waqf waaye waqfu it buñ ko defee fokk mu am ñu ci jariñu ñu am ñoo xam ne ñoom la jëm ci ñoom loolee nag fokk mu doon anam goo xam ne anam gu dagan la waaw boo nee kat sama boutique bii dama koo def waqf wala sama kër gii dama koo def waqf man dañ koy luyee lu ca génne nañ ma ko joxal diw ak diw ak diw ak diw wala nañ ma ko joxal njabootu diw wala nañ ma ko defal ci daaray alxuraan sàngam wala nañ ma ko joxeel jàngalekatu alxuraan yi wala nañ ma ko joxal jàngale jàngkatu xasida yi waaye mu am anam goo xam ne fala li ñuy wax ko di dem njariñ ñoo koy jariñoo loola nag dañ koy sàtt mu bañ a doon ak mooy yàlla waaw doone daal damay def wàq waaye la cay jóge fa muy jëm mu doon foo xam ne du lu yàlla gërëm loolu bu boobaa wàq booba du baax waaw ndax kenn wërta dooleel loo xam ne ak mooy yàlla la ca booy wàq njariñ la di dem ci ci ci ci ak anam anam googee yaa ngi koy yaa ngi koy dooleel te mbirum jaamu yàlla la kon waruñu koo jëme fenn foo xam ne ka ca ña ca nekk bàkkaar da leen cay fekk waaw barab boo xam daal fecc ak caaxaan ak foo lañ fay def nga ne sama wax bii lu ci génne nañ ma ko dugalal barab sàngam bu boobaa loola wax booba du baax waaw wax mën naa doon kay jay jariñu mën naa doon doomu aadama waaye mën naa doon sax ay bàyyi ma waaw mën ngaa gis ko wax wax boo xam ne day bëgg bàyyi ma yi ñu di ca faj ñu ca di faj bàyyi ma yi nga xam ne dañoo tawat wala yu demee noonu nga xam ne daal man waqf ñooñu yëpp mën nañ cee mën nañ cee jariñu waaye la ñuy waqf nag muy alal ji nga xam ne moom la ñuy teg ci yoonu yàlla loolee it fokk mu nekk loo xam ne lu ñuy lu am xiima la waaw nga xam ne loo xam ne boo ko doon jaay ñu mënees koo jënd lu mel ni ab tool lu mel ni kër lu mel ni ab teer lépp loo xam daal am na valeur loo xam ne ma am na njariñ te mën a am xiima loolu mënees na koo wax fokk mu nekk it loo xam ne ki koy waqf moo ko moo ko moom waaye ñu wax ne it waqf bu dee ci mazhab imam Malik alal ci boppam xaalis mën nañ koo def waqf mën ngaa jël ab somme ne somme bi waqf laa ko def ngir ñu mën ci lebal nit ñi kuñ lebal nga faj sa aajo delloosiwaat wala sax ñu di ko yaxantu la cay génne di am fu muy dem ca ndey alal ja des fa muy capital ba des fa loolu mën naa bu dee ci mazhab imam Malik man maye nañ maanaam mënees naa wax ci alal joo xam ne xaalis la buñ doon xool nag anam yi nga xam ne xeet yi nga xam ne moom la wax fu am maanaam am na ay anwaa ay xeet mënees dañ koy séddale xeeti wax fu yi loolu it buñ koy séddale dañuy xool ña nga xam ne ci ñoom la waqf bi jëm mën naa doon mbooloom jullit ñëpp wala mu nekk loo xam dal képp kuy doomu aadama mën nga caa jariñu nga xam ne jëglee luñ ko ak benn famille wala jëgle ki koy def jëglee lu ko jabootam loola bu boobaa ñaari façon waqf moom am mooy waqf bi nga xam ne moom la ñuy wax al waqful xayri yi nga xam ne dañ koo def mu doon loo xam ne dañ koo jëmmale ci anam bu baax rek maanaam nga ne daal lii maa ngi ko def ngir daaree alquran yi lii maa ngi koy def ngir daayira yi nga xam ne dañuy setal lépp lu ca génne nañ ko jox xeeti daayira yooyu wala lépp lu jóge ci fii nañ ko jox ñi xam ne dañoo tawat wala lépp lu jóge ci sama waqf bii nañ ko jox ñi nga xam ne dañoo néew doole wala ñu ay masakin bu boobaa loola waqful xayri yi lañ ko tudde nga xam ne amoo ñoo ko jagleel ci sa ak njaboot mu am waqf boo xam nag waqf ahli lay doon nga xam ne aw nit maanaam nga ne ah njabootu diw wala diw ak diw ak diw bu fi jógee seeni sët ba nangam mën naa doon loo xam ne ba abadan day continuer mën naa doon loo xam ne da nga ko wutal ab diir ab ab nga xam ne diggante boobu moom lépp lu jógee ca la nga def waqf day dellu ca ñooña ñu di ko jariñoo kon yu loolu xeet ñaari xeet la ci xeeti ci xeeti waqf loo xam ne am la ñépp a ko bokk ak loo xam ne xaas la dafa am ñoo ko ñu mu ko jagleel ka koy génne daal dafa am ñu mu ko ñu mu ko jagleel bu dee alal dañuy def waqf it am na ñaari xaaj ndax am na waqf boo xam ne li ñuy wax mobilier lay doon ak li ñuy wax immobilier loo xam ne dafa sax du doon loolu luy tuxu alal joo xam ne du tuxu lu mel ni kër moom du tuxu dem fenn lu mel ni ab teen du tuxu dem fenn yu mel noonu nga xam ne lu mel ne tool lu tuxu dem fenn nga xam ne loo xam ne suuf la barab la ak la ca nekk loola buñ ko waqfoo xeetu waqf la mooy al waqf boo xam ne waqful aqaar lañ koy tuddee moo xam kër la moo xam boutique la moo xam suuf la moo xam ay teen la ak lu ni mel lépp lu am njariñ daal nga teg nga ne daal lii moom def naa ko waqf nit ñi jullit ñi ak doomu aadama yi mën cee jariñu ak waqf boo xam ne immobilier la nga xam ne lu mën a tuxu lay doon lu mel ne ay téere mënees na koo def waqf ay téere mën ngaa ah gis naa ne barab sàngam bari na jàngkat yi jàngat xam-xam waaye ay téere yombu leen man ma dem wut téere yu bare bari yu ñuy soxla ñëw def teg ko fi barab ne waqf la bu ko kenn jaay bu ko kenn maye nga xam ne képp ku soxlaa yër daal ñëw yër képp ku soxla ab téere ñëw àbbu dem jàng delloosiwaat ndax loole lépp lu ca juddoo ci tuyaaba day delloosiwaat ci yow kon loolu moo doon lu ñuy toxal mën naa nekk sax ay jumtukaay ay jumtukaay yoo xam dañ koy soxla gis naa ne dëkk bii day bari na ñu fiy soxla di am ay ay ay ay ay xeeti màggal wala jàng wala dara ma dem wut ay bâche yoo xam ne dama koy def waqf rek ku bëgg a def lu mel noonu ma abal la wala ma dem wut ay cin yoo xam ne dama koy def waqf ku ko soxla ma ñu ñu jox la boo noppee delloowaat mu nekkal fa yàlla ngay jariñu moom di moom tuyaaba ja kon li ñuy waqf mën naa nekk lu sax benn barab mën naa nekk loo xam ne alal juy juy tuxu lay doon ay basang man ngaa ne damay am naa ay basang yoo xam ne dama koy wax wala alal alal ji ma wax ni luy tuxu lay doon loolu kon mooy ñu xam lan mooy wax lan mooy ponk yi waaye fan la tegu ci diine mooy ci diine lislaam shar'iyaam fan la fan lañ koy fan lañ ko jëlee dañuy wax ne fi li diine moom lu ci sax rek alquran ak sunna si yonte bi salallahu alayhi wa sallam ñoo ko saxal lii di waqfu it alquran ak sunna si yonte bi salallahu alayhi wa sallam moo ko saxal ndax alquran ni mu ko saxale mooy boroom xam-xam yi fiq yi dañoo wax ne boo demee ci alquran bari na ayat yuy digle yoo xam ayat yuy digleel jullit bi mu génne alalam def ko ci yoonu yàlla lebal yàlla mooy jaamu yàlla ci sa alal loolu suñu borom subhanahu wa taala da koo digle ca loolu waqf ci la bokk suñu borom digal nañu ñuy def lu baax waqf ci def lu baax la bokk kon dañuy wax ne mboolem tegtal yi nga xam ne day tegtal jullit bi ngir mu def lu baax ngir mu jaamu yàlla ci alalam loolu boo demee ci alxuraan dafa bari lool bari na mën nañ cee joxe rek suñu borom subhanahu wa taala fi mu waxee fi mu waxee ne yaa ayuha alladina amanu rkau wasjudu waabudu rabbakum wafaalu lxayra wafaalu lxayra laallakum tuflihun wafaalu lxayra xam nga lu yaatu la lu yaatu la na ngeen def aw yiw na ngeen def lu baax na ngeen def lu baax loolu ku ne xam na ne waqfu ci la ci la bokk ndax alal nga def ko ci yoonu yàlla képp koo xam ne jariñu na ca tuyaaba ja jëllu fekk si fekk fekk si la loolu aw yiw la woo xam ne wudul jeex la wa faalul xayra la àllakum doon wax nañ dañuy jàpp ne kon laaya boobu ci yi ñuy sukkandiku la pour wax ne waqfu lu sax la ndax moom aw yiwam da dul yem fenn ndax feeg jëmmi loolaa nga fa ñu di ko jariñoo yiw wa di la fekk fa nga nekk suñu borom subhanahu wa taala am na fu ñu waxaat ne man da alladi yuqridu allaha qardan xasanan fa yudaa'ifahu lahu adaafan kasira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turjaun laaya boobu nga xam ne suñu borom day soññee ci nit ki di lebal suñu borom subhanahu wa taala ku ne xam ne ne yàlla moom aajowu dara nga di ko lebal waaye lu baax li ngay def ngir yaakaar mu fay la ca loola alquran daf cee soññee ci barab yu baree bare ku ne xam na ne waqf kon ci bunt boobu ci la dugg suñu borom mi ngi waxaat ni lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuxibbuuna wa ma tunfiqu min cheyin fa inna allaha bihi alim ne na aw yiw bala nga koo am du ngeen ko am mukk te joxewu leen li nga xam ne bëgg ngeen ko waaw ci li ngeen bëgg ku ne xam na nag alal ci li nit gën a bëgg la bokk ay kër lu lu nit bëgg la ay ay magasin lu nit bëgg la ay tool lu nit bëgg la loolee nag soo ko mënee joxe te yàlla tax kon loolu da nga am lu baax da nga am aw aw yiw te loolu dafa jafe ndax ñu baree bari mën nañoo joxe lu bari waaye day fekk loo xam ne aaje wootuñ ko waaw waaye li nga xam ne soxla nga ko aaje woo ko ba noppi mën a koo joxe ngir yàlla loola mooy li nga xam ne mooy tax nit ki gën a am gën a am lu baax gën a am yiw te suñu borom subhanahu wa taala moom ñaar mën nañoo joxe lu tolloo wala kenn ki joxe lu ëpp ko ku joxe kenn joxe lu gën a néew suñu borom fay ki joxe lu gën a néew la gën a bari ndax mën naa gis ne kii moo ëpp yéene te it lii mu joxe moo ko gën a aajowoo nit ki mën naa joxe lu bari te yor milliard joxe un million bokkut ak ka nga xam ne deux millions rek la yor joxe benn million donte ñoom ñaar ñëpp a def lu baax waaye kii mën naa am lim soxla lim joxe moom moo ko gën a bëgg moo ko gën a aajowoo kon loolu wax buñ ko settantalee dañuy gis ne waqfu kon ci jaamu yàlla yi gën a am solo la bokk yi nga xam ne alquran digle na ko ndax li ñuy waqf lépp lu am njariñ la loo xam ne boroom da koy bëgg da koy aajowoo kon suñu borom mi ngi ñuy xemeem loo joxe suñu alal ci anam goo xam ne ñeneen dañ ci dañ ciy jariñ loolu kon bu ñu ko toppoon mën nañ mbooleem aaya buy digle joxe digle waale na ci biir waqf ndax waqf da cee bokk ci xeeti anami joxe yi nga xam ne ay jaamu yàlla la waaye sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax na ci te bokk na ci li ñuy gën a tegtaloo mooy sayidna omar radiallahu anhu ci xaybar dafa amoon suuf soo xam ne suuf su baax la mu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko am naa suuf soo xam ne day mosumaa am suuf su ma ko gënal waaw ndax baax gam baax loo ma ciy digg loo ma ciy digal yonente bi ne ko ah su la soobee day nga saraxe ko maanaam nga wax nga def ko muy wax bàyyi ko fi jullit ñi di ko jariñoo ba ko yonente bi waxee Omar tegu ca baat daa daat ne def naa ko wax kon kenn dootu ko jaayati kenn dootu ko maye kenn dootu ko doon kon Seydina Omar bokk na ci njëkk a def wax muy tegtale ne kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko ko digaloon moo ko ko dénkoon kon muy jëf ju baax joo xam ne jullit bu nekk war naa bàyyi xel su ko manee mu roy mu mu mu roy ci saxaaba yi te bu ñu xoolee ci histoire l'islam dañuy gis ne saxaaba yëpp mën nañoo wax ne ñi mën a amoon man-man ci saxaaba yi ñëpp ku ci nekk mos kaa def mos def nga wax saxaaba yi yëpp ñi ci amoon man-man ci jamono jooja def nañ wax loolu saxal nañ ko boo demee ca Bayhaqi yi ci as sunanul kubra ma ngay ma ngay lim yu bari ci saxaaba yi ñoo xam ne amoon nañ ay wax ak taabiin yi sax ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu wax mu joxe misaal ci Abu Bakar radiyallahu anhu amoon na kër bu baax ci Makka defoon ko waqf Sidna Omar tudd nañ ko léegi ci Xaybar amoon na fa suuf su baax def ko waqf Sidna Ousmane moom it amoon na alal ju bari ci Xaybar def ko waqf Sidna Ali radiyallahu anhu wa karrama wajha amoon na moom it suuf soo xam ne yan bon la ko amoon suuf su baax moom it da koo def waqf noonu lañ koy waxee ci Zubayr ibn al-Awwam wax ko ci Maaz ibn Jabal ak yenn ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Saad ibn Abi Waqas ak Khalid ibn Walid ak Jabir ibn Abdullah ak Uqba ibn Amir Abdullah ibn Zubayr ak ñeneen ak ñeneen ñoo ñëpp boo demee ci Bayhaqi ci as-Sunan al-Kubra mi ngi lim ngir wane rek solo sum amoon ba tax saxaaba yi fonkoon ko ba taxoon it ñi nga xam ne ñooy taabiin yi doon leen ca roy kenn ku nekk alal ja nga amoon nga di ci def nga di ci def wax bu ñu demee ci alamul islam yi ci monde islamique bi ci réew yi réew yi lislaam yépp dañuy gis ne fonk nañ wax bu yàgg ba léegi ba tey sax réew yu bari boo fa demee da ngay gis ñu am ministère boo xam ne mooy saytu mbirum wax yi ndax day bari lool ne wasaratul awqaaf boo demee Maroc am nañ ko Égypte am nañ ko daanaka réew jullit yépp am nañ ndax al bari bari gi nit ñi fonk waqf di ko def day mujj bari lool ba nga xam ne état moo koy mën a saytu ndax bari waay ba ak njariñ lu mën a am ak dépense lu ci mën a am tey boo doon xool boo doon xool réew moo duggoon di xool seeni rapport ministère bi rapport yi muy def ci wax di la wax nangam dépensé nañ ko ci ay bourse nangam dépensé nañ ko ci maanaam wàllu jàng ak jàngale nangam dépense nañ ko ci wàllum paj ci yooyu yëpp ci aw xaaf la jóge wax fa la jóge ñu di ca def loola da ngay gis rapport yi boo duggoon ci internet tey di ko gëstu réew mu nekk mën ngaa dugg seen site gis seeni rapport xool la ñu dépensé ci année bii ñu jàll wala année yi ko weesu waaye loolu nag tàmbalewut tey ba ca bu yàggoon la tàmbale woon am ndax ci misaal ibnu Battuta xam nañ ko ñu baree bari ku daan tukki la raxaala la woon di dem ci ri waaye fu mu dem nag lu mu fa gis da ko daan bind waaw lam bind ca Dimash muy ci Syrie mooy Syrie nii ba mu fa demee bokk na ca wax awqaaf yu bari yam fa fekkoon ca loola yàgg na mu ca joxe mu joxe mu lim ca yenn yu mu fa fekkoon ci ay awqaaf ne fekkoon na fa awqaaf yoo xam ne dañ koo jagleel ñi nga xam ne dañoo bëgg a aji ba noppi am mët lewuñ man daal nga xam ne daal am nañ aajo bëgg nañoo aji waaye am nañ ay jafe-jafe am na ñoo xam ne dañ ne su sama waxtu bii daal li ciy génne nañ koy dajale ngir ñi bëgg a aji rek loolu amoon na awqaaf yoo xam ne fekk na ko waaye fekkoon na fa ci biir Dimashq lu yàgg awqaaf yoo xam ne la cay génne dañ koo jagleel ñi am borom kër ñu wañ leen ñu war leen a waajal jëbbal leen seen borom kër waajtaay yooyu fi ne amoon na awqaaf yoo xam ne loolu lañ ko jagleeloon ndax xam nga loolu rek la ay jafe-jafe la nga gis koo xam ne day am borom kër waajtaay wala mu laaj mu am ci jafe-jafe lool waaw même borom kër bi sax mën naa am jafe-jafe waaye soxna say tamit mën naa am jafe-jafe fekkoon na fa ay awqaaf yoo xam ne ñi ñu jàpp cañ war leen a jotu ndax xam nga boo fekkee dañ la jamono bu ñëkkoon prisonnier buñ ko jàppee léeg-léeg dañuy laaj alal ngir ñu mën koo bàyyi ndax boobu biñ daan xeex réew jullit yi di xeex ak ñeneen amoon na ñoo xam ne seeni awqaaf dañ ne la cay jógee ci alal dañ koo jagleel jullit yi nga xam ne dañ leen a jàpp ñu war leen a jotu ñu war a jël ca loolee jotu leen wala ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo juum ñu leen di laaj diya wala ñu leen di laaj ñu leen di laaj amaan lu leen di leen alamaan ñu génn ca alal joojee jàppale leen ci ngir ñu mën a génn ca kaso bañ nekk kon loolu xeeti awqaaf la yoo xam ne amoon na ca Dimash nee na sax fekk na fa sax waqfu boo xam ne ab jardin la rek boo xam ne féexlukaay la waaw nga xam ne féexlukaay la boo xam ne ñi ñëw doole mën nañ faa dem féexlu ndax bu booba jamono yooya ñi am alal rek ñoo daan am barab yoo xam ne ñoo koy def ay jardin seeni njaboot di fa dem waaye ñi néew doole amuñu ko am ñoo xam ne gis nañ yërëm nañ leen xam ne aajowoon nañ ko ñu dem def ay awqaaf yoo xam ne la cay jóge ci alal lépp dañ koo dañ koo jagleel benn jardin boo xam ne dañ koo def waqfu ngir ñi néew doole ñoom bu ñu waree féexlu man faa dem man faa dem di féexlu loola nee na mi ngi woon ci Dimash ci mooy Damas booy génn Damas nee na amoon na fa ay jardin yoo xam ne waqf la woon bu ñu ñëwee Maroc gii rek am na fa ay wax awqaaf yoo xam ne ñiñ for lañ ko jagleel xam nga loolu la mi ngi am ci suñu réew yi mi ngi am ci réew yu bare bari koo xam ne gone gone soo xam dañ koy for duñ xam ay bokkam duñ xam ay waajuram léeg-léeg ay waajuram ñoo koy ñoo koy teg sàkkal pexe léeg-léeg moom mu réer ba nit for ko mën naa am ka ko for waru am amunu koo saytu léegi am na awqaaf yoo xam loolu rek lañ ko jagleel ngir saytu ñi nga xam ne dañ leen a for ak ñi nga xam ne ay jirim lañ seeni waajur dafay jóge ak ñi nga xam ne dañoo am laago dem ba am laago mënutuñoo liggéey ñooñu ñu am awqaaf yoo xam ne ñoom lañ ko jagleel ak ñoo xam ne sax dañoo dañoo gumba gisatuñ ñu am awqaaf yoo xam ne ngir lu dundal ñooñu waaw lu leen dundal wutal leen barab buñ dëkk di leen dundal loolu lépp ci ay awqaaf yoo xam ne ci lay jóge loolu boo demee Maroc am na fa ci ci Marrakech sax amoon na fa bu doy waar sax boo xam ne waqf boo xam ne moom dañ koo jagleeloon soxna yi nga xam ne dañoo am jafe-jafe ak seeni borom kër xam nga bu dee fii moom soxna si day fay dem seen kër am na foo xam ne xëy na soxna si du ñemee dem seen kër wala mu bëggut a dem seen kër ñu am wax boo xam ne foofa lañ leen di yóbbu ba jubóog seen borom kër ñu duwaat seen kër loolu nga xam ne lu nekk rek daanaka ñu ngi ko doon bàyyi xel ci mbirum mbirum mbirum wax am na ci Égypte moom it waqf yu bari yëpp ay misaal la yoo xam ne ci histoire la amoon ba léegi mi ngi am léegi nag dafa gën a moderne waaye pour wax la ne rek naka jekk réewu jullit ñi waxtu tasaaroo woon na fa ca ñi ngi ci doon ñi ngi ci doon jariñu bu baax a baax ci Égypte moom it am nañ barab yoo xam ne ñi nga xam ne seen i borom kër dañoo dañoo dañoo dañoo tàggoog seen i borom kër nekk ay ay ay ay ay aramil lañ fa daan wal al ayaama ñoo fa daan nekk dañ leen dañ amuñu borom kër wala dañoo ñàkk am jafe-jafe amuñu fuñ dëkk ñu yóbbu leen ci barab yooyu kon barab yooyu ay awqaaf la doon doon yoo xam ne ñoom lañ ko jëgleen ba noppi dañ fa daan def ñoo xam ne ay sans ay bindaan yoo xam ne ñoo leen di taxawu di leen toppatoo di leen saytu wut ñu leen di toggal ñu nekk fa rek di fa nekk loolu nga xam ne jaamu yàlla bu mag la ku naroon a jullit bu nar a tumuranke daal wala nit ku nar a tumuranke am nañ lu ñu waajal loo xam ne ci awqaaf yi lañ ko doon lañ ko doon jëlee boo demee ci Oman yi am nañ fay awqaaf yoo xam ne xeetu cin lay doon cin yu mag a mag a mag a mag yoo xam ne dañ koy dañ koy toggee nga xam ne ñii am ay xew dañuy dem ñu jox leen ko ñu togg bu ñu noppee delloo nga xam ne loolu ay awqaaf la yoo xam ne am na loolu nga ci la ñuy dégg rek ne ci histoire ul islam domaine bu nekk am na awqaaf yoo xam ne ay daara daara la daara la ñuy jël barab boo xam ne dañ fay def ñuy jàng ñu leen di saytu di leen taxaw ci loolu lépp ci ay awqaaf la kon bari na ci biir lislaam ci biir réewi jullit ñi jariñu gu ñuy jariñu ci wax ci anam ji wutee wutee wute yooyu ñu wax yépp ay anam la yoo xam ne lenn la rek la am na yeneen sax yoo xam ne yoo xam ne yoo xam ne tudduñu ko waaw ndax am na awqaaf yoo xam ne dañ koo jagleel réew yoo xam ne seen waqf dañ naan man day sama waqf bii li ciy génne nañ ma ko jagleel joxe ay ndogu ci weeru koor waaw ñi nga xam ne amuñu daal luñ ndogoo liy génne ci sama waqf bi maanaam bu dee kër gu ñuy luwee la cay génne nañ koy def aw ñam di ko jox ñi woor ñu koy xadde ak di ko di ko di ko dogee ak sax ay gan ñoo xam ne dañoo nekk tumuranke ñëw ci dëkk bi amuñu fu ñu dal ñu wutal leen awqaaf yoo xam ne moo leen di dundal ba seen yitte mat ñu dellu wala ñu jàll fañ jëm ak sax awqaaf yoo xam ne jigéen ñi war a ñiy nàmpal te amuñu amuñu meew ah yu amuñu luñ jëndalee luñ nàmpale seen doom te xëy na ñoom amuñu soow ñu wut awqaaf yoo xam ne da leen di da leen di da leen di jàppale leen dimbal ak luy du dimbal dimbale seeni seeni gone am na sax ay awqaaf yoo xam ne dañ ci wut ay takkaay di ko able di ko able soxna yi nga xam ne dañuy bëgg a waaj war a dem kër ñu waajal leen ci buñ demee bañ ganale leen ñu delloo ñu delloo kon xeeti jariñ yi mën a jariñoo ci waqf lu yaatu la lu bari la bu ñu xoolee wàllu jàng ak jàngale lu ci baree bari ay waqf taxawal na fi ne bari na ay université yoo xam ne taxaw nañ tey te cosaan la waqf la woon waqf boo xam ne daara la woon daara jay màgg ba jur ay école ba jur ay université bu continuer nekk nekk nekk waqf kon loolu ci wàllu jàng ak jàngale waqf def na ci lu baree bari bari na ay opi hôpital ak fajukaay yoo xam ne waqf la nga xam ne ña ko ña ko taxawal ci waqf lañ ko taxawale la koy doxale ay awqaaf moo koy doxal waaw nga xam ne dañuy am barab yoo xam ne ay boutique la wala dara la fay génn lépp ñu di ko def ca ñu ko def ca barab yooyee gis nañ barab yoo xam ne ay làqukaay la nga xam ne ku tumuranke loolu lépp kon ci wàllu social wàllu santé wàllu éducation lu ci nekk gis nañ taxawaay bi nga xam ne waqf am na ko ci ñu mën koo ñu mën koo jariñoo bu ñëwee ci Sénégal nag moom comme réewu jullit yépp mën nañu wax ne am na ñu fi daan def ay awqaaf waaye nag bari na lu ñuy def lu ko nuru nga xam ne xaw naa yor atte waqf doonte tuddewuñ ko waqf loolu moom bari na bari na ci Sénégal lool ndax Sénégal jullit yi fi nekk rawatina sax yoonu murit nga xam ne yàlla suñu borom def na ci ñoom ak nangoo joxe ak nangoo def ci yoonu yàlla gis nañ yu baree bari yu ñuy taxawal yoo xam ne boo ko xoolee dana jege lool ak wax loolu moom yàgg na fi ci misaal bari na boroomi alal yoo xam ne ñi ngi jékki-jékki tabax daara joo xam ne dañ koy tabax ba mu àgg ñu jox ko nit bàyyee ko ko nga xam ne kañ ko jox nag moom sañu koo jaay mayuñu ko ko moom sañu koo jaay sañu cee def lu may la boroom kër ga bëgg lam ca charte mooy na ci jàngale alquran na ca nekk moo ko njabootam loolu boo ko xoolee mën nga ne daanaka daanaka wax mooy wax rek waaw donte buñ ko ko tuddewut it loolu boo ko xoolee mooy mooy mooy wax loolu loolu loolu bari na mën nañu wax ne ci jamono yu mujj yi ñu nekk moom Cheikh Mouhamadul Murtada radiallahu anhu bokk na ci ñi ko gën a yëkkati moom baatu wax waaw bokk na ci ñi ko gën a feeñal ndax lim taxawal lépp ci ay daara ci ay société nga xam gisoon nañ société transport yi mu fi taxawaloon ak yeneen yu baree bari mu taxawal ko lépp doon loo xam ne day jariñ jullit ñi daf ko defoon waqfu lillah daf ko defoon waqfu lillah damay wax ne sax ñu baree bari bi ñuy gis kaaram yi mu di ci def wax di ko ci bind xamuñu woon xamuñu woon luñ ci jublu am na ñoo xam dañoo jàppoon ne sax ak léemaay la ak ñaan la ba kenn ku nekk sa boo amee sa njagajaay nga bind ca wax lillaay waaye la cay jógee da nga koy da nga koy def ci sa poos fekk na moom booba ñu ngi doon wane jullit yi aw yoon woo xam ne bu fi lislaam bu am solo la mooy jël loo xam ne alal la joo xam ne day mën a jur dañ koy investir dara di ca génne nga ne lii def naa ko waqfu lillaahi ne kenn du ko donn kenn du ko jaay kenn du ko maye loolu da ko bañ ba da ko da ko bindal boppam sax ba am na am nañ ci man mii am naa ci copie ñu ngi ko bindoon ci 1986 bindoon na benn ifaada boo xam ne i'laan waqf la nga xam ne daa lim lim am wane ne lii da koo def waqf lillahi subhanahu wa taala kon loolu misaal la ci ne Sénégal waqf am na ko waaye nag ni mu war a tasaaroo ku ne xam na ne tasaaroo wut noonu waaw ni mu war a tasaaroo tasaaroo wut noonu ñu bari danañ danañ danañ danañ ko def lu ko nuru waaye lay tax du doon waqfu ñoom bu leen neexee ñu jekki-jekki jaay ko waaw da ngay gis ku jox nit ba mu yàgg mu wëlbati ko nangu ko wala mu jóge fi ay njabootam ñëw jëlaat ko te bu bu doon buñ ko defoon dëgg-dëgg waqfu sart waqfu yi daje ci ñu ne lii waqfu la moom bu fi jógee it loola dafay des kenn du ko donn waaye dafay des nekk fa waqfu mu doon luy wëy moo tax xam ko di lu am solo ba man bu ma jëlee am yéeney def lu baax am yéeney defar loo xam ne ay jullit ñi dañ ciy jariñ ca tuyaaba ja war maa fekk fa ma nekk yowmal qiyaam mu doon lu sax dak ma fexe ba def ko wax bind ko tënk ko bañ xam ne lii waqfu la nga xam ne ëllëg di su ko def leneen waaye léeg-léeg ni ma ko waxee léegi da nga gis koo xam ne defar na barab bu baax jox ko ñu koy jariñoo ci diine waaye dafay jógee ay njabootam ñëw daal di jëlaat seen yëpp séddoo ko wala ñu jaay ko te bu fekkoon ne dañ koo def da koo def waqf jaarale ko fii waqf war a jaar bu boobaa loola dootu ca mën a dootu ca mën a am gis nañ ni ma ko waxe lu mel ne daaray kokki gis nañ ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ay waqf yu am solo yoo xam ne taxawal nañ ko yoo xam ne day dell njariñ gi day dellu ci daara ji ak yeneen daara yu du kokki ak yeneen barab ci ci ci biir réew mi fii ci suñ dëkk bi gis nañ boroom alal yu bari yoo xam ne dañ def lu mel noonu def kër gu baax jox ko ab suñ daara loolu rek moo ko xara xeeti waqf la ni ma ko waxee léegi rek xëy na ñàkk koo encadré ba nga xam ne dañuy xam ne lii moom waqf la ñëpp maa si jabootam xam ko ñëpp xam ko moo ciy man gis nañ ne it daayira yi li ñuy dajale di ko jënd moo xam barab la moo xam matériel la daanaka atte waqf lay xaw a yor ndax luñ ci luñ ci def ñoom dañ koy xidma lay lañ ci jublu dañ ci dañ ci dañ ciy liggéey waaye boo ko xoolee melokaan wa nga xam ne mbir mi du ko du kenn dootu ko moomati dañ cay jari dañ cay jariñu wala bu dee loo xam ne it dañ koy luwe la cay génne duñ ko séddoo waaye dañ koy def ci anam goo xam ne anam gu anamu jaamu yàlla anam gu baax la loolu lépp man xeetu xeetu xeetu awqaaf la waaye doonte nag tuddewuñ ko tuddewuñ ko wax kon Sénégal bari na luñ fi def loo xam ne xëy na dañ koo tuddewul wax waaye xeeti atte wax fu lay xaw a yoon waaw atte wax fu lay xaw a yoon waaye nag ñi nga xam ne noonu lañ xamee wax mu war a am yoon wum jaar ñu war koo nos loolu mooy li nga xam ne moo xawoon na moo xaw a manqué ci ci ci ci réew mi bu ñu xoolee fii ci yoonu murid lu bare bari ci lu ñuy def man nga ne nuru na lool waqfu ndax alal la joo xam ne dañ koy def ci yoonu yàlla kenn du ko doon kenn du ko moom kenn du ko sañ a jaay ëllëg ca loola dafay def ñëpp di ko jariñoo loolu daayir yu bari ñu ngi koy ñu ngi ci ñu ngi ci am nañ ci luñ ci taxawal boo xoolee Matlabul Fawzayni yu mu def hôpital beeg barab yi nga xam ne liggéey na ko fi boo xoolee Hizbu Tarqiya boo xoolee Touba ca kanam li muy def lépp boo xoolee fondation Maam Jaara ak yu ni mel yu bare bare bari yoo xam ne ñi ngi taxawal loo xam ne mën nga ne ku ko xool mën nga ko xaw a jox àtte àtte àtte wax waaye nag li xawoon a manqué ca am ci yeneen réew mooy loi boo xam ne mooy nos wax xam nga fi ñun ñu ngi koy jàng ci téere fiq yi waaye foo dem ci réewu jullit ñi day am autorité boo xam ne mooy saytu mbirum wax mu am loi boo xam ne mooy nas wax wax ne lii mooy àtte yi lii mooy ponk yi nii lii maanaam nii lañ koy saytoo nii lañ koy taxawale buñ demee ba ak soppi ku war a am nag la la naka la yan yoon lañ ko war a jaare ki ko yor lañ lan lañ sart ci moom yan sart moom moom moom la ñuy nangu ak yan sart lañ nanguwut loolu amul benn loi boo xam ne bu dee ci Sénégal boo xam ne moo ko tënkoon ba jamono yu ni ba jamono yu yàggut ndax réew yi nga xam ne dañ koo tënk la ngay joxe ci wax yow mi ab entreprise nga def dara ci wax bu ñuy xool say impôt yooyu yëpp dañ koy bàyyi xel li nga xam ne da nga ko def wax bu dee fii nag amagutoon ba 2015 bii la ñu daal di la ñu doog a indi benn loi boo xam ne mooy saytu mbirum wax ci Sénégal mu doon loi boo xam ne numéro 11 2015 lañ ko lañ ko lañ ko la ko assemblée nationale woote ba saxal ko te la ko waral it la fi ko fi ko yàlla jaareel lay wax mooy banque islamique de développement xam ngeen ne moo doon jàppale daara yi alxuraan yi di jàppale Sénégal ci daara yi alxuraan yi jox ko alal ju bare bare ne ko dafa bëgg mu doon wax boo xam ne la cay jóge dañ ci saytu daara yi jàppale leen ci matoon na fukki milliards ak lu topp ngir ñu war cee defa wax loolu nag ci la état du Sénégal ginnaaw moom amutoon ci wàllu système am ci wàllu ay luwaam lenn loo xam ne mënees na faa sukkandiku ba amal wax boo xam ne yoon nangu la moo tax ci la gouvernement Sénégal xalaate ne kon mbiru wax kat lu ama am solo la lu am njëriñ la ah te ginnaaw lii taxaw na nañ far wut ab loi boo xam ne moo koy saytu ci lañ indee loi boo xam ne lépp luy at tey wax boo demee loi booba tënk nañ ko ca waaye boo ko seetloo nag lu ci baree bari ci fiq mazhab imam Malik ci lañ ko ci lañ ko ci lañ ko ci lañ ko li ca bari bokk ci lañ ko ci lañ ko tënk loi ba boo ca demee mi ngi lay wax xeeti waqf yi am waqf bi naka lañ koy taxawale ci yan sax waqf bi kañ lay jeex ak lan moo ko mën a jeexal buñ demee ba ay jafe-jafe ci am ci waqf naka lañ koy lijjantee loolu lépp boo demee loi ba tënk na ko ku bëggoon a def waqf fooy jaar loi ba tënk na ko waaw boo amee kër ba koo def wax dem ci notaire notaire ba déclaré ko fa am na beneen décret boo xam ne moom ginnaaw bi loi bi jàllee décret boo xam ne moom moo taxawal kuréel gi saytu mbirum wax ci Sénégal moom la ñuy tuddee haute autorité di wax haute autorité di wax moom it bi ñu bi ñu amalee ci deux mille deux mille seize bi maanaam bi bi ñu amalee loi bi. ni suut lañu def décret boobu ngir mu taxawal kuréel googu kuréel googu nga xam ne boo ko xoolee dañ koo dañ koo yéegal ci primature la topp ah primature la topp nga xam ne moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu waqfu ci Sénégal moom mooy enregistré waqfu yi mooy xool waqfu yi am ci Sénégal mooy def recensement yi li nga xam ne waqfu bi nga xam ne état moo ko taxawal it moo koy saytu moo koy yoral boppam waaye mooy contrôler mooy superviser yeneen waqf yi nga xam ne ñeneen a ko moom ndax loi bi prévoir na nit ki am waqf waqf boppam saytul ko boppam ne njariñ li na dem ci jullit ñi waaye état ci boppam dana amal ay waqf waaw bokk na ci waqf yi nga xam ne moom moom lay taxawal ngir jàppale daara yi ak ngir wàllu éducation boo xoolee fee ñu wax ne moo nekkoon ministère de l'éducation sax dañ koy moomale waqf boobu nga xam ne fa lañ war a defar loo xam ne waqf lay doon mooy mi place bu njëkk ba kon haute autorité di waqf boobu nga xam ne moom lañ taxawal lan mooy lan moo ko tax a jóg mooy lépp luy waqf ci Sénégal moo ko war a moo ko war a gérer moo ko war a saytu bokk na ci liggéeyam fexe ba encourager waqf maanaam fexe ba ma ba waqf nit ñi gën koo xam di gën a di gën a taxawal ay waqf ndax gis na ne lu am njariñ la ci ci réew mi waaye bokk na ci liggéeyam it di superviser ak contrôler waqf yi nga xam ne waqf privé la nit ki da koo def ngir ak njabootam wala geneen njaboot wala ay nit wala mu am nu ñu ko jagleel jagleel ko ay daara wala jagleel ko ñu néew doole wala ba noppi yoral ko boppam moom haute autorité boobu moom du ñëw jëlee ko ci yow da koy bàyyee yow waaye da koy da koy saytu di ko xool ba tey it waqf lépp loo xam ne charte la boo xam ne kii def waqf moo ko charte ca lam waqf haute autorité bi moom bokk na ci saytu ba charte yooyu ñu di ko ñu di ko ñu di ko ñu di ko ñu ko ñu ko ñu di ko respecté ndax waqf loolu da cee am solo mooy nit ki jël alalam def ko ci yoon yàlla ne nii laa ko bëggee dañoo wax yoon dafa wax ne dañ koo war a sàmm nam ko bëggee waaw du ne def naa waqf ñu ne ko waaw yow kon def nga ko rek toogeel fee sa yoon nekkatu ci waaye moom lam bëgg ne nii la bëgg ñu doxale ko waqf bi loolu dañ ko war a dañ ko war a sàmm dañ ko war a saytu moom it bokk na ci liggéeyam mooy enregistré lépp luy waqf ci ci ci ci Sénégal waaw fexe ba it waqf la ko tax a jóg ñu di ko ca def waaw ja njariñ la mu war a jariñ mu jariñ ko loolu yëpp moom mooy liñ tënk nag ndax ma ngi koy def ndax defagu ko ak loola moom amuñ ci xam-xam waaye boo demee loi bu moom ak décret bañ të tënk lii lañ ca wax ne mooy ay liggéeyam lii lañ ca wax ne mooy ay liggéeyam lépp loo xam ne kër la walla suuf suñ def waqf moom day saytu ba ñu enregistré ko ba mu am ay këyit ba nga xam ne ëllëg coow du coow du ci war a mën a am lépp lu waqf moom it moo ko war a saytu ba kenn du ko jalgati dara du ca du ca du ca sikk du ca ayib kon moom ay rëddal nañ ko lu baree bari ne ko moo ko war ci mbiru waqf ci jamono yu yàggul sax santaane ñu santaane nag autorité boobu ñu gëstul ko waqf yi ci Sénégal mu wut mu engagé benn cabinet boo xam ne moo ko defal enquête enquête ba lam génn ci waqf nee na quatre cent waqf la génne xam nga loolu xëy na mën naa am ñoom lañ gis waaye maanaam wax fii ëpp na ëpp na ëpp na loolu ci Sénégal waaye ñoom daal liñ gis nee nañ ci liñ defee gëstu ci Sénégal ñeenti téeméeri awqaaf lañ fi lañ fi gis. loolu it gis nañ ne làmboo na lu bari làmboo na loo xam ne ci wàllu santé maanaam wër gu yaram wàllu jàng ak jàngale ak yeneen yoo xam ne nit ñaa ngi koy jariñoo yoo xam ne am na ci réew mi ci ay ci ay awqaaf am na ci loo xam ne mobilier la am na ci loo xam ne immobilier la. bi ñu bi ñu ko xaymaa dañoo wax ne xayma yi li fi nekk ci ay awqaaf ci réew mi mat na 17 milliards waaw fukki milliards ak juróom-ñaar ñoom ci lañ ko xayma waaye loolu nag day mën naa am gisuñu lépp mën naa am xayma wuñ lépp waaye laa loolu ab jàngat la bu fa nekk boo xam ne boo demee ñoom ci seeni ci seen site sax am nañ site boo fa duggee da nga gis information yëpp soo xam ne haute autorité di wax boo ko defoon tey mën ngaa dugg xool seeni liggéey ak xool yan mooy seeni projet yi nga xam ne moom lañ bëgg a amal ñoom ci seen bopp ak li nga xam ne gis nañ ko ci ay waqf ak yoon yi nga xam ne ku bëgg a def waqf fa nga war a jaar loolu lépp ñoom ubbi nañ benn site boo xam ne boo demee di nga ko ci di nga ko ci fekk waaye loi bi bañ koy bind di ko gaaral lañ ko layale dañ caa wane waale njariñ loo xam ne waqf mën na koo am ci réew mi moo tax li ñuy wax exposé de motif nga xam ne booy bind ab loi dafa da nga koy lay mel na nga koy layal naan loi bi lii tax ñu indi ko ña ngi koy wax ne waqf dafa am njariñ lool ci maanaam jëf yu baax yi nga xam ne nit ñi ñi ngi koy def dafa mën a participer saa buñ ko nosee dafa mën a bokk ci liy développé ci wàllu économie réew mi maanaam éco développement économique réew mi daal waqf mën na ci am taxawaay bu am solo maanaam dundug nit ñi it maanaam mën na ko gën a rafetal maanaam seen wàllu njàng seen wàllum paj ndax tey waqf lii di am yalwaan rek bu ñu nosoon waqf ci Sénégal mën naa jeexal yalwaan ci ci ci ci ci ci ci dëkk bi ci réew mi ndax ñii yalwaan ñëpp buñ leen fekkoon fañ nekk jox leen lañ aayewoo ci dun ci dund yaa yaakaaruma ne dinañ jóg di di di di yalwaan te am na buñ ko buñ defaroon ay awqaaf yoo xam ne waxtu nekk am na lu cay génne ñu di ko jëmale ci barab yooyu dëkk bu nekk am ko marché boo dem am fa ay xa- ay cantine yoo xam ne awqaaf la yoo xam ne daara yoo ko moom loola bu boobaa mën naa wàññi lu baree bari ci jafe-jafe yi nga xam ne jaa daara yi ñu ngi koy ñu ngi koy dund moo tax boo demee ca luwaa ba ñu wax ci ne waqfu day mën naa participer lool ci maanaam gën a baaxal dundiinu nit ñi ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu éducation yar ci wàllu liggéey wutal leen sax ay liggéey ndax am na waqfu yoo xam ne dañ dañ koy dañ ciy def ay investissement di ci liggéey di ci jël ay nit ñu di ca liggéey ñooñu ñu leen di fay weer ba noppi la cay génn ci bénéfice ñu di ko jëmale ci anam ya nga xam ne moo moom waqfu booba waaw nga xam ne kon mën ngaa am tool boo xam ne dañ cay liggéey ñu cay liggéey ñu leen di fay mais tool bi nekk waqf mën ngaa am ay barab yoo xam ne usine boo xam ne sax ña cay liggéey ñëpp la cay jóge lépp day nekk waqf kon waqf ci boppam day mën a participer ci développement économique réew mi dafa mën a participer dafa mën a bokk sax ci liy jox nit ñi ay liggéey ci wàllu wàllu wàllu yu baree baree bari waaw moo tax moo tax ñoom ñu gis ne kon war nañ ko war nañ ko wutal ab loi boo xam ne moo koy nas ca it loi boobu day bari yeneen yu mu àndal yoo xam ne kiy joxe waqf même ci wàllu impôt war naa am jariñu gum ci mën a jariñu ba tax xëy na loolu buñ ko defutoon waqf lañ ko cay teg ci impôt buñ ko defee waqf léegi dootuñ ko teg ay impôt loolu yëpp ay mbir la yoo xam ne dañ koy nas ngir gën a mën a encourager nit ñi ñu def waqf yoo xam ne la cay génne day dellu ci ñi ñi néew doole loolu nag ci lay ñëwee rek ci xëy na tomb bi may mujjee ci loolu ñu wax ne ay njariñ la fii ñun buñ ci bëggoon a jariñu anam yu bare bare bari tey mi ngi fi yoo xam ne mënoon nañoo jariñoo ci ay awqaaf ba jàppale ak anam jàppale liggéey yooyu yu bare bari mi ngi fi ndax ginnaaw loolu suñ borom defal na tawfeex ba sëriñ bi yar na taalibe yi ci joxe waxtu nekk lu ñu woote lu baax lu nekk nga gis ñu njëkkante def ci lu baax nga gis ñoo xam ne ñu ngi yëkkati seen alal di ci def lu baax nga gis ñoo xam ne li ñuy séddale ci am at di ko séddale néew doole yi lu baree baree bari la waaye am na am na ci ñoo xam ne la ñuy séddale tey suñu mënoon nañ koo def ci luy génne alal au lieu que ñuy séddale alal ja waaye ñu taxawal loo xam day génne alal nga xam ne tey lekk day daal nekk source maanaam masdar bu sax dak boo xam ne ñoom ëllëg buñ fi nekkatutoon it lañ doon génne mën naa jaare ca loola di génn waaw waaw masal koo xam ne mën nga ne at mu jot nga séddale nangami million tey boo jëloon rek cinq cent millions jënd ci ab immeuble boo xam ne dana nekk fu placé koo xam ne la cay génn ci weer wu nekk ay millions lay doon nga ne léegi kon bâtiment bii moom léegi dama ko def wax léegi la ci jógee fa nga doon joxe alal léegi la fay léegi joxeetoo alal directement mais bâtiment ba nga taxawal mooy joxe alal loola bu boobaa yow dafa ëpp garantie dafa ëpp garanti ndax looy xas joxe yow tey boo demoon ba tële ko wala nga dem ba say ba ba ba ba sax nga nekkatoo fi ña nga fa bàyyi ñoom alal yow moomatoo ko waaw bu bu leen neexee bu leen yàlla defalee tawfiq defal la tawfiq mën nañoo continuer la nga doon def ci alal la ñu di ko ca def waaye mën nañoo ñëw ne ñoom seeni xel xel jëm feneen seeni xalaat jëm feneen sa alal ñu séddoo ko jëmale ko ci leneen bu boobaa yow la nga doon def moom suñu borom bind la ko tuyaaba am nga yiw wa nga jiital waaye la nga waroon mën am mu la mu la fay fekk si mën naa am du ñu demee kon loolu it lu mat a bàyyi xel la ci ñi ngi joxe bu baax a baax ca loo joxe moom xam nga ne da nga ci am tuyaaba waaye bàyyi xel nag anam gii nga xam ne lu yoon moo ko tëral lislaam tëral ko nga xam ne soo ko xasee def ba faw maanaam day nekk sadaqa jaariya sadaqa jaariya boobu yonte bi waxoon ne nit ki bu fi jógee léppam day dog ba mu des ñett wax doom xam-xam bu ñuy jariñoo bu mu fi bàyyi waaye doom ju baax di koy ñaanal waaye sadaqa jaariya boo xam ne dañ ci jariñu waqf bi dañ koy limaale ci sadaqa jaariya te loolu damay wax ne lu mat a bàyyi xel la ëllëg ndax damay faral di bëgg di fàttali waxi wax yoo xam ne ci ci ci ci enregistrement bu ñu enregistré woon sëñ Habibu yàlla ko yàlla yokku leer yokku ci moom yërmande mu doon wax ne sëñ tubaa mu doon firi mawu ak fuuyu ne mawu ak fuuyu dañ koy wax ci àdduna waaye nee na yowmal qiyaam barzaq la am waaw ndax nee na barzaq loo maanaam nit ki lam fay am lam am ci aw yiw ak i tuyaaba moom lañ koy soppil ay xéewal mu di ko xéewloo ba saa di taxaw te kenn xamul kañ la saa di taxaw mu ne foofa loo fa am ci aw yiw lum bari bari bari bari sa xel du nekk ci may ci keneen da koy fuuyu ak moom mu ne foofu la fuuyu am waaw nee na it foofa barzax ku fa sa ay tuyaaba jeex sa xel du nekk ci ñaan keneen da ngay xala mawu rek foofa la mawu am ne loolu mooy maw yàlla na yàlla musal ci mawu kon loolu moo tax nit ki war a bàyyi xel la koy jariñ ëllëg looy def fii lu mu baax baax lu mu bari bari xamal ne du doy ay tuyaaba du doy waaw waaw ndax mën naa am li nga def lim bare bare bari maanaam dunde nga ko barza defal nañ la ko ay xéewal nga jaaxal ko ko kon nag bàyyi xel loo xam ne dafay sax dak lu am solo la boo xoolee nag bari na tey liggéey yoo xam ne ñi ngi koy bëgg a liggéey mu doon yu am njariñ waaye dañuy dem ba ca biir di ci am jafe-jafe lu koy financé te loolu bu ñu wutoon ay awqaaf dana ko man day am solo lool mën naa cee joxe misaal masalan barabi jàngu yi ci Tuuba léeg-léeg da ngay gis barab yoo xam ne dañuy am jafe-jafe lool ci lu ko léeg-léeg nit dimbale leen wala léeg-léeg at mu jot am ku leen dimbale waaye xoolal su fekkoon dañoo wut ay awqaaf yoo xam ne dañ naan li ciy génne lépp bare bi jàngukaay yi ñoo ko moom dañ leen ciy dimbale nga xam ne weer wu jot ay million mën na caa génne ñu séddale ko bare bi jàngukaay moo xam ay daara la moo xam ay ay ay ay ay ay ay ay ay école la loolu wax fu mën naa liggéey foofu lu am am solo waaw te loolu gis nañ fu mel ne daaray kokki am nañ awqaaf yoo xam ne macha allah lu am solo la ci ay borom alal yu fa nekkoon ak yooyu ñoo ko xalaat ak ñi nga xam ne dañ leen a bëgg a jàppale ngay xool liggéey bu bu am solo bu mel ne bii nga xam ne Muxaddamatul Xidma mi ngi koy def ci defar ay ndogu nga xam ne ay junni junni nit ñoo fiy dogoo bis bu set te xoolal ku amoon ab immeuble fii wala ab ay boutique fii wala ay cantine foo xam ne ci marché occasion nga ne at mi lu mu liggéey lépp dama koy def wax bu ñëw mu ndogu yu ñëwee nañ ma ko ca defal xoolal jooju tuyaaba nga xam ne moom loola day daan nekk masdar bu sax dàkk boo xam ne nag faw loolu day continuer waaw feek ñi ngi woor feek Muxaddamatul Xidma ngi fi di joxe ay ndogu yow tuyaaba ja foo ma nekk la fay fekk te xoolal dogal kenn rek ku woor nga am tuyaaba du toll ne jam am moom moo woor te du wàññi ay tuyaabam loolu nga def nga di ko defal ay junni mu noon ay at yu baree bare xoolal lu jooju tuyaaba te loolu man man nga ko bañ a xeeb man nga ne man am naa juróomi cantine benn cantine bi naa ko def wax naa koy luwe lu ciy génn mu nekk ci benn kees boo xam ne man dama koy jagleel ndogu yi ndogu yi Muxaddamatul Xidma rek waaw ndax loolu sañees nga ko ko misaal yi ma joxe woon man nga ne sama waqf bi lii rek lañ ma ko ci jëmaleen waaw waaw loolu mën naa am man nga ne sama waqf bi dama bëgg ñu di ci ñu di ko jënd ceeb di ko yóbbu ci ay daara kese lu ciy génn nañ ko nañ ma ko defal loolu misaal xoolal tey li ñuy bind li ñuy taalif ci yoon wi bari na ñu bind ñoo xam ne la ñu bind mënuñu ko génne ndax amuñu moyen yuñ ko mool raw du rayaxeen at mu jot mu génne téere ay téere waaye bala ñoo mool dara léeg-léeg tey su fekkoon ne am na waqf boo xam ne dañ naan waqf bii daal lu ci génne rek na dem ci tasaare njàngaleem Sëriñ Tuubaa ak mbindam man borom alal joo xam ne day génne waqf boo xam ne moo koy Ndakaaru la koy am boo ko foo ko mën a am wala Tuubaa waaye dana lii moom dama koy jagleel tasaare njàngaleem sëñ Tuubaa li waqf sama waqf bi loolu laa ko bëgg a def nga xam ne bu boobaa ku am téere boo bëgg a mool bu aw raw dorayaahin amee téere bu mu bëgg a mool bu demee ca waqf ba waqf ba financé ko mu mool ko keneen wafa bu ñu amee téere bu ñu bëgg a mool bu demee ca waqf waqf mool lu ko mu xaddamata sëñ bu ñu amee téere bu ko bu ñu bëgg a mool bu ñu demee ca waqf waqf mu xoolal loolu loolu yaa ngi yaa ngi liggéeyal xam-xam bu boobaa ilmun yuntafa bihi da ngay daal dugg ci loolu loolu anam ngoo xam ne war nañ cee mën a jariñu ci ci ci ay ci ay aw awqaaf la boo xoolee lu mel ne daaray kaamil yi daaray kaamil yi maanaam yoonu murit dëkk boo dem man nga ne jum jàkka joo dem am na fa ñoo xam ne liggéeyuwuñ daanaka lenn lu may jàng alxuraan waaw fajar geeg tisbaar jeeg tàkkusaan ji lépp ñoom ñooñu tey bu ñu amoon ay awqaaf yoo xam ñun rek lañ ko jagleel la cay génn lépp ci ñoom ci ñoom lañ koy jëmale loolu tey xoolal jooju tuyaaba loolu lu lu lu lu am solo lay doon waaw dëkk bii fi ne tey dëkk ba ñu bari dañ fiy ñëw di fi siyaare même ñoom dañuy ñëw rek siyaare delluwaat buñ fi bëggoon a yenn duñ am fu ñu yenn buñ bëggoon fu ñu waaje sax léeg-léeg ñu am jafe-jafe buñ bëggee fu ñu xewloo bootu dañuy jënd suñu amoon awqaaf yoo xam ne dañ naan bii daal awqaaf bii daal liñ koy jagleel mooy ñi ñëw di ziare si rek fa ñuy am na barab yoo xam ne ku fi dëkkul bu ñëwee mën faa dem añ nga xam ne koo xam ne jumaa jee la tax a jóg ziare si tax a jóg boo fa ñëwee da nga dañ lay da nga da nga dañ la dalal nga waaj nga añ nga ñëw ziare nga delluwaat fa nga fa nga dëkkoon xoolal ñi fiy ñëw ñëpp léeg-léeg boo ñëwee foo foo foo foo foo dugg waaj sax léeg-léeg jafe-jafe lay doon. ñi ma seen gan ñi fii ñëw bëgg a siyaare si di di gane Sëñ Tuubaa ci dëkkuñu fi waxuma la gan ñi nga xam ne bitim réew la ñuy jógee loolu bu ñu amoon ay awqaaf yoo xam ne tey dañ koo jagleel loolu mën naa mën naa mën naa mën naa kii lu bëree baree bëri nekke noonu awqaaf yoo xam ne ay foo lay doon ndax wax naa ne léegi imaam masi imaam Malik ja maye nañ nga jël alal ne lii wax fu la waaw mais alal lii wax la léegi alal jooju ngir ñu di ko lable waaw bari na ñu bëgg a liggéey si ne am nañ métier waaye amuñu luñ liggéeyee ndax amuñu capital buñ déparé nga xam ne dañuy nekk ay at di fu ne ñu dugg fa duñu am luñ tàmbalee bala ñoo am luñ tàmbalee daanaka lu baree bari dem ci seen i at tey su fekkoon ne am nañ awqaaf yu mel noonu yoo xam ne ku bëgg a liggéey ñu ñëw ñu lebal la nga liggéey de ñëw delloo siwaat mu de mu nekk fa loolu bu boobaa danañu musal ci banque yi ak seen intérêt yu bari yi nga xam ñu ngi koy teg boo bëggee liggéey daanaka intérêt yu bari bari boo le bu ñu la lebalee moom daanaka ñoom ngay xaw a liggéeyal te bu ñu amoon fonds yu mel noonu nga xam ne waqf lay doon kenn ku leb boo liggéeyee nga delloo siwaat loolu day doon lu ama ama ama am solo waaw barab yi fi nekk lu mel ne kër maam jaara nga xam ne ay jirim ñi nga xam ne dañuy judd rek seeni waajur faatu wala mënuñu leen a yor wala kii ñun def leen fa jafe-jafe yi ñuy am su amoon awqaaf yoo xam ne dañ ne awqaaf yii daal ngir jirim yi rek ñoo ko moom mën naa am la ñuy soxla weer wu jot mën naa am benn wax fu dong boo xam ne moom mooy assuré loolu te loolu borom alal bu xasee def moom jeex na loolu day daal di continuer des fa kon lu bëree bëri ci mën nga wax domaine boo gis rek bari na ñoo xam ne lu am solo la ca ña fa nekk masalan wax boo xam ne ñi ñi nga xam ne dañu nekk ci jàkka yi di ko saytu am na ñoo xam ne fa ñuy jóge di dem ca jàkka ja ñuy dem day sori lool te duñu am leen yóbbu ñuy dem fajar di am jafe-jafe bu amoon awqaaf yoo xam dañu naan ngir yóbbu ñoo ñu delloo si leen seen kër mooy mooy mooy kii ak di leen dimbale foofu rek laa ko jëmale wax fu mel noonu loolu day daal doon lu am njariñ ci ñooñu nga xam ne daanaka duñu leen bàyyi xel te jàkka joo dem da nga fa gis ñoo xam ne fajar ñoo fay njëkk ñoo fay mujj guddi mën naa fañ dëkk sori na dañuy dox loolu lépp te am amu ay ay jafe-jafe waxuma daal yeneen jafe-jafe ya nekk ca biir nag ah yooyu yëpp bu fekk amoon na ay awqaaf yoo xam ne mi ngi fi ñu nos ko organiser ko dina doon loo xam ne lu am njariñ lay doon. kon xam naa ne li ñuy dañuy daaneel foofu rek ku joxe misaal yi ku ko toppoon du jeex waaye ngir wax ne rek bare bi defukaay yu lu baax yi mi ngi fi yoo xam ne ñi yàlla man loo. mën nañoo wut ay awqaaf yoo xam ne dañ ko fay jëmale mu doon loo xam ne dañ day doon lu lu nosu day doon dana doon lu am njariñ lool ci ki koy joxe ndax tuyaaba yi mu koy dolli ak njariñ li mu koy dolli ak barkeel gi muy barkeel alalam waaye dana doon am njariñ lool ca ña ñañ ko ñañ ko jagleel ñuy ay jullit yoo xam ne wala sax ay doomu aadama rek yoo xam ne aajowoo nañ ko ñu leen ci ñu mën leen cee dimbale mu mel ne daal ci xikma ci wane mbaaxub lislaam ak mbaaxub sharia maanaam waqf bokk na ci li koy li koy wane lii mat a gën a am yaakaar nag mooy bu dee fu mel nii nga xam ne suñu boroom bind na leen mën a def ci yoonu yàlla bari na ñoo xam ne buñ demee ba mu leer ci seen bopp lañ daan def danañ ko ci yokk ñu bari ñu bari ñu ngi def lu baax ñu ngi joxe ay azaka te bokk na ci li nga xam ne it dana gën a dolli yaakaar xalaat bii nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha mubaaraka na ko te mooy taxawal kër azaka yi ndax bu ñu nee fu ñu waxee nos azaka rek mën nañ faa waxaale nos lu jëm ci wàllu awqaaf ndax yu mel noonu ñoo xaw a ànd mooy alal yi nga xam nit ki dañ koy def ci yoonu yàlla te am na kuréel boo xam ne taxawal na ko muy kër azaka yi mu dénk ko Touba ca kanam yaa ñu baree bari dégg nañ dégg nañ ko yaakaar ne lu mel noonu bu taxawee mën naa indi yaakaar ci ñu saytu mbirum awqaaf comme ni ñuy saytoo mbirum azaka mu doon loo xam ne dina amal njariñ jullit yi dina amal njariñ lislaam dina amal njariñ dëkk bi kon yàlla nañu suñu borom subhanahu wa taala defal tawfiq ñu bokk ñi nga xam ne dañuy dénk alal ju lew te man koo def ci yoonu yàlla man cee def lu baax ah loolu rek lañu doon indi ci bunt muy bunt bu yaatu ñuy jéggalu bu baax di ñaan yàlla mu defal ñu ay tawfiq nangul ñu suñu jaamu yàlla ci koor gi di ko ñaan mu yàggal Cheikh Mouhamadou Mountakha wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh